yaa ngi jàmm. maa ngi sant Serigne Touba bu wér a wér. ya dégg naa. Sa Thiès daa dugal recours ci digganteem ak Reug Reug. tey ah. recours bi génn na. bon recours bi dugg na ba génn. bu sa déplacé wul waaye déplacé wul ndax live bi am gën neex waaye boo déplacé woo rek mu neex de. bu dee foofu nga déplacé wu dem foo xam ne. maa lay dégg de yaa may dégg. maa ngi lay dégg. ah. ma ne Sa Thiès daa dugal recours. yàgg na génn na. mais recours kañ lañ dugal tey mu génn tey. recours yàlla moo gën a gaaw recours CNG. la ban recours a génn. recours yàlla. loo bëgg a wax Boucher loo bëgg a wax. mais recours yàlla lu àdduna bi yëpp teg seen bët. recours yàlla leeralu yàlla. yëfu yàlla moo gën a gaaw. atte yàlla moo gën bu nit bu dee li may wax du dëgg ne commentaire ne du dëgg recours yàlla moo gën a leer recours nit di mais dama gis ne Reug Reug ak waa Thiaré géej ñu ngi sibile ne daan nañu Sa loolu ban jàngat nga ci am. waaye sénégalais xam nañ ni Sa Thiès daan. may ma tuuti rek. commentaire yi xam nga dama na a nawloo. ñi gëm ñi ñi gëm ni Sa moo daan te yàlla leeral na lépp may leen ma ay kër yu ruus ma xool ay kër yu ruus ma doog leen a expliquer. Hmm? së non kër ci commentaire yi laa wax ci commentaire yi voilà nii waaw kër ci commentaire yi. lii lan la. waaw lii day mais sama way waa ak Mbay moo ñëwaat moom moo dekk kii daanu mel ni moo daan. mais buus yi lan la lan dafa mel ni da ngeen a soxla woon dam quoi lan la lan la jël bi victoire dafa rëy ci yéen trop quoi. mais parce que victoire léegi moo tuuteetul wax yiñ ciy wax a tax wax yiñ ciy wax a tax moo tax léegi ku ci am ndam rek da nga koy savourer làmb foo la woon ak ree ak kaf mais léegi dafa dem ba jéggi foo ree ak kaf. Hmm? da nga gis benn buuse génn di neexal di wax làmb ji rek ma cay dégg ma wax. déedéet. combat Balla Gaye sax bu ñëwatee nii laay def tekk ba pare def li may def ci suuf naa wax ci làmb. tànk ndam amul dootuma wax ci làmb. buuse dafa am benn waaju ma woo. boo génnee Touba. fan nga fa demoon. Hmm? faram booy faram doo wax ci làmb ji ngir yàlla yonent mais bu boo génnee Touba dafa mel ni am na benn waaj wi fa yaakaaroon fan nga demoon foofu. faram man dema fenn man làmb ji sama kër laa toog. mais gis naa ne lan moo tax ngeen bàyyi yàgg Balla Gaye 2 ba làmb ji di ba 18 heures nangam ngeen doog a dugg ci làmb ji lu waral loolu. lépp làmb la rek. làmb la. dafa mel da ngeen a sot rek rek quoi da rek rek rek dafa mel da ngeen koo sot. non mais moom moom am na ay mbokk ñun am nañ ay mbokk mbokk yi ñoo taxaw rek ah. commandal yàpp commandal yàpp liiru ah commandal yàpp ah. lu neex ma fay loo commande ma fay ñoo daan. eh, eh booy booy jox ko buur eh kaay eh, rek sa waay liiru. laa tey laaj bi neex tey laaj bi neex. commande lu la neex ci yàpp ñu fay ñu lekk ba suur waaw baax na. mais mais buuse. Ah. Balla Gaye 2 dafa ñëw ci làmb ji dugg ci biir dugg ci biir làmb ji quoi. ñëw mel ne ndab li ci loxo Balla Gaye dina nekkoon. li loolu ko jàngatee. ginnaaw yàlla moom liggéey na ci lu ko may ndam. ndax nelawul guddi nelawul bëccëg lekkul naanu woo na ma quatre heures du matin woo na ma six heures woo na ma cinq heures woo fépp fu mu xalaat ci àdduna rek dugg nañ fa. dawal na quatre di du matin ñu dem dawal naa ñu dem dawal nañu ñëw dawal ñu lu ne daj na ko lekkul naanul. kon felistasyon. Mè gousè, dè fè mè ni? Dè fè mè ni, dè nko pè repare ki misti gwam dole? no affaire mystique moom moom moo ko moom moo ko yëg moom moom cas la ëppee woon moom mystique moom ñoom ñoo ñoom ñoo jëloon làmb di teg ko ci mystique mais pas ñun pas ñun. Hmm? ñun ñun làmb ci entraînement lañ ko tegoon moo tax mu daw egguñu fi mu ñu egg Reug Reug li mu def Sa waaw. xaar xaar. aywa ñu koy woon arrêté woote yi waay. waaw allo. Wow? ma ne fi mu egg Sa man Ketchup man. man. waaw eggoon sama morom billaahi wallaahi du rëcc. loo bëgg wax nga bëgg wax. xolal Reug Reug fi mu egg sàcc bu ko fa bu eggoon waxatuñ ko sax. fan la Reug Reug àggoon yow ku laaw nga daw rañaan ko dajale ñaari tànkam yëpp sukk say oom am appui jàpp ñaari tànk yi rañaan ko Reug bu siggi woon sàccees ca kaw la jëm bu foloon tànk droite bi day daw wër ko ndoom ba pakete ko lu garaaw laa lay wax. Hmm? mais sàccees mooy lakkantaan. boy kooku mbër la. Hmm. ba pare xale la day fi taxu yaram bee baax macha allah. mais Boucher Boucher rek dafa mel ni Sa Thiès man li sax problème mooy balaa maa def dara dama gis Balla Gaye 2 ñëwut ci làmb ñëwut ci làmb ñëwut ci làmb bi mu ci contre Boy Niang ba léegi. saa ki di bëree Balla ñëw ci biir géewu làmb ñëw joxe lan la lan la lan moo taxoon Balla Gaye lan lan ba léegi kenn dégg ko mu wax lan la. waaw ah, parce que Balla moo doon bëre moom moo doon bëre nii di Balla Gaye mooy Boy mooy mooy mooy mooy Sa Thiès Sa Thiès ay moom Balla Gaye daa bëgg Sa am ay immeuble am ay kër am ay oto am bien yim am moom. Mm-hmm. Balla Gaye chaque jour limi saxal ci nop sanchez bi moy da nga wara am lima am wala nga rombo ma lolo tax mu sonu ci hmm ak serigne Bam. daj na ci lu ne lu ne daj na ko ci bay waxay yow de. mais da ngay a gëm ne bu ngeen defé recours la ñu jox victoire bi. nga ne. da ngeen a gëm ne bu ngeen dugalee recours dañu leen jox victoire bi. waaye may ma jàmm waaye nga naan ma jox victoire victoire xoolal man maay wax ak yow force la force force doole mbaam pàccal li ngom saf kaani force force saa des moo daan force te dañ ko koy jox force loolu nga bëgg a xale loolu force la loolu waxatuñ ko lu sénégalais yi wax la peuple bi ñoo ko wax peuple bi ñoo ne Sa Thiès moo daan peuple àdduna ñëpp ko wax Sa daan léegi nga bëgg ci teg lan mais dama xam ne tey jii mën ngeen a dem waa CNG indi leen ay ñoon-ñoon ne gisuñu carte appui ah mën ngeen a dem waa CNG ne gisu gisuñu xanaa kon CNG la ñuy dégg ci def ko daayira daayira xanaa da ngaa dog ah loolu neexalu ma ci kenn force la maanaam jëlu sa des bi neexalu ma ci mbindeef bu yàlla bind force Sa day jël victoire force doole mbaam force àdduna ko wax force day jël victoire am force. Bouss dafa mel ni waa Guèye waa da ngeen xeexoon victoire quoi. dafa mel ni da ngeen amoon victoire waaw ñoo yay suñu làmb la làmb la làmb verdict euh, euh, sagam dañuy yëkkati fii ay loxo nit ne ne décision arbitre mais asama ku bëre ba daal. mais nag mais nag Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 warta ñëw na ci géew bi. du ruube nag cummi kaay bi nag. Balla il Balla il est trop classe de ça Balla bousewul puusul paasul la ko fa indi woon mooy defal ko rakkam def na ko dem saagaw fa waxu fa jokkalantew fa kàddu li ñuy wax yëpp se faux. mais dama gis non amul jot boobu. Balla Gaye jokkalantew fa waxu fa kenn la mu yoroon pour Sa la def na ko ba mu des euh, dernier réglage ñu dóor ta loxoom mu am maîtrise. bàyyi koog yalla sunu borom xolal tay lako nit wo ma wax loolu garaaw. waaw. sànq la kilifa bu mag wo waaw sank lako kilifa bu mag wo ci dëkk bi. ne ko il faut il faut il faut exploiter ça. parce que on t'a on t'a fait quelque chose qu'on devrait pas faire waruñu door sa loxo humilier le fofu dina def ay affaire léegi da ngay dem ah, comme que justice gis nako procureur yëpp demal nga porte plainte ko kooku bokul ci lamb ji balay def loolu. mais xam nga lu mu ko ci tegal. Mm-hmm. man awma xolu tëj kenn te kilifa laa boo xam ne waruma teg kenn lu ko métti ndax damaa yor njaboot. Mm-hmm. barke Serigne Bamba Xaadim Rasul. voilà c'est le meilleur. mais mais dama gis ne dama gis dama gis ne dama gis ne Balla dafa ñëw ci géewu làmb ji changer rythme làmb ji. waaw mais Balla mooy làmb dafa xam làmb Balla tamit nag dafa yàgg ci làmb def lu ne ci làmb mais Fadam du ñu wax ci jëlle bi Fadam. Fadam dinañ ci wax dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw egg saa teer fi mu ko egg paquete ko mais du ñu wax ci loolu yow. dinañ ci wax. saa teer def la station tegg benn tànk bi teggi ko ne ko mbàccax teggi daw Reug Reug ba xam fa la bëggoon Reug Reug xam fa la bëggoon jaar ci pokotaan bi ci pokotaan bi la bëggoon jaar saa teer rocc loxo bi. jël benn tànk gauche bi teggi ko ci oomu saa ci bi daw taxawaat xëcc ko faax. bëre. mais mais Boucher. Boucher man benn problème la am. Balla Gaye 2 bi ñëwee ci géewu làmb ji daa changé rythme bi nga xam ne nii gi jii ci la rëdd nekkoon énervé rek daf ko énervé. faram Balla Gaye saf na la. non dama xam ne dafa ñëw ruube xale bi ci biir géew bi ruur na ruube booy bi. ah. ci biir géew bi. non non mooy lan ruube bi mooy ñëw xëpp sa rakk gàllaaj. non. noonu nga ko jàppee. mais loolu du ruube rakkam la ñëw jàppale si. loolu du ruube si làmb la bokk. balaa ñëw ci bëri bi damaa gis ne Gris di tuus lan moo tax Sa Thiès génne stade bi lu waral loolu. waaw ay tegtal la. mais Sa Thiès daa génne stade ba jeex tàkk lu waral loolu. waaw. <laughs> fan la demoon. lan moo tax Sa Thiès génne bi. fan la demoon. Balla Gaye la dajal wala kan la dajal. fa la demoon laa loolu laa mais lan moo tax bu bu di tuus ngeen génnee saa kii bi lu waral loolu. lan moo tax tuus ma laaj la moo tax moo tax ma am na ay information mais xaw ma lépp lan moo tax ngeen génne saa kii bi. léegi fan la demoon. lan moo tax ngeen génne saa kees ba mu génne parking bi ba génn ca biti ba rëdd tuus ba pare mu doog a dugg si waat stade bi. Boucher. ma ne. Boucher fan lan moo taxoon ngeen génne saa stade bi. bi rëy waaw demoon fan fan la la demoon. ñàkk koo xam moo tax ma di la waaw man nag xaw fu mu demoon. daa am ngeen doon abattre ah. ah. daa ngeen doon rek kii. Fadam. waaw. nga ne lan. daa am lu ngeen doon def nii. Fadam barki Serigne Bamba yow billahi wallahi. ah. daa lu ngeen doon def nii ci biti. en tout cas daal. ñëw na. làmb na daan na ñibbi na. hum fan la tey jii tey jii Reug Reug bëri ndax yomb na Boucher. waaw méttiwul de. non Boucher waxal dëgg ndax bu Reug Reug mi ma xam mën a bëre tëj làmb bi Ndakaaru nga ne bëri moom yomb na lu war a loolu. waaw parce xam nga tax bëri moom yomb ah. waaw ñëpp dañ koy jox favori. Hmm. buñ ko joxee favori après moom affaire bi da koy dépassé. Hmm. day ànd ak pression. loolu nii. Ah, après moom day ànd moo tax saa ki bu dalee rek da koy daan ay fas jël yu facile. direct Instagram Instagram. Hmm? waaw noonu la demee. mais tey jii tey jii tey dama gis ne dama gis ne rëg-rëg ba léegi fi may wax ak yow nii ba léegi nii moom gëmul na Sa Thiès daan na ko te yéen tamit gëmu leen rëg-rëg daan na leen non non ñun ñu tax mu ñuy daan ñun lu Sénégal yëpp xam ne daan nañu moom ke ñun daan nañ ñun ñun daan nañ ñun moom on a gagné mais Fadam c'est man yëpp du ko teg kenn mais Fadam CNG bi zé bi lan la jëriñ ci réew mi. loolu nag fa laa doon mujjee ak yow tey jii zé boobu ngay wax noonu bu buuse yan xalaat nga ci am ci ñoom ni ñuy dundee ci làmb ak arbitre yi ni ñuy def ci diggante mbëri ak dagg bi ñuy dagg mbëri tey jii te arbitre yi kenn du leen kenn du leen aj loolu xanaa am nga ci xalaat. tey buuse am na solo gaay